Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité TV xibaar yu wér di ba tey ak ma Mamadou Diop moom mi nga xamante ne tey xam na géej moom mi nga xam ne tey mën naa ne ci géej la juddoo moom mi nga xamante ne tey euh, liñ ne looy loo xam demba ma demba gën laa xam boppam tey bu ñu waxtaan ci géej moom aussi dinañ waxtaan ak moom euh, duñ def lu baax ak mu yoo nuyu nañ la onze billahi mina seytaan rajim ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonante bi sant waajur waaw maa ngi leen siyaar di leen fay waaw maa leen siyaar di leen fay waaw seen waa ci waay waaw moom moo laajee si géej moom dinaa sawar trop parce que ñun moom masu ñoo jàngat maa école sama ñu see toog su leen jàng ngeen xam kese waaw ba nga amee ñaata at nga commencé dem géej 2006 laa dala dem géej 2006 waaw 2006 laa dala dem géej ba léegi mhm. mais porote bu mu toll nii comme ni sama rakkay wax nii rek géej gi métti na métti goo xamante ni kenn xamul fu mu am kenn gars yi fu mu toll ni produit yi fiy dugal sax pour mool am problème ak jën yi kenn xamul lu mu toll instant bi maanaam ñun dañoo jaaxle xamatuñu fa lañ dem xamatuñu fa lañ war a mën a dem gisoo ñun ne ñu ngi naan buñ gisoon gaal tey tey day day dem buñ gisoon gaal tey day dem parce que danga gisatul liggéey fii gisatuñu dara fii maanaam gars yi fi nekk nii borom doole ñooy dimbalante comme li ko booy waxee léegi nii borom doole kese borom milliards yi ñoom ñooy dimbalante seen bopp. waaw géej gi instant bi nii ñett yi fiy dox muy fala tournée. fele fele. ak ngët mi. ñett yëpp doxatul benn doxatul ñëppaa ngi toog boo wàcc woon fii tey si géej fii di nga gis gaa yi toog ku nekk da ngaa jaale. ak amatuñu benn liggéey boo xamante ni moom lañ war a def. saa mun xëyee ñu ñaari tëddee nalaw di lekk naan ataaya kese looloo fi am instant bi kenn damatul fenn instant bi dañoo jaale si géej gi ñun daal bu ñu mënoon jàppal si gi. ñun daal moom moo ñu gënal quoi parce que ñun xamu xamuñu benn liggéey bu dul géej. waaw man ba ma juddoo ba léegi laa xam. mais maanaam li ma gis li ma gis léegi produit nii si géej suma kaa gis ba ma juddoo ba léegi te géej gi day gën a metti di dem. kon actuellement yéen defu leen dara yéen a ngi toog war a joxe dépense wala dimbali papa wala dimbali yaay. trois mois yi daw ma fen trois mois yi daw ma fen liggéeyu ma daw ma fen. parce que lii est-ce que yaakaaroon na aussi moo tax euh, xale yi di def loo xamante di def naka sudul noonu parce que tey nga xam géej yow kese demoo fenn jàngoo amoo métier amoo dara géej rek nga xam. nga xëy gisatoo dara ci géej gi. bu boobaa di nga def loo xamante ni waroo ko def. waaw moom dëgg la moom dëgg la parce que fii moom moom yàlla dañoo dimbali ay jeunes. Mhm. nangoo liggéey mais yàlla dimbali ñu ñoo xamante ni ñun duñ sàcc duñ duñ duñ wër maanaam di jël alal jàmbur. Mhm. liggéey kese lañ xam buñ gisee liggéey dañuy liggéey mais buñ gisee liggéey dinañ toog xaar wax tamit lu nekk sunu xol yi génn ka mhm. parce que toll nii ñun jaaxle nañ jaaxle nañ fa fa jaaxle yam xamatuñ ñun lan doon war a def maanaam Macky Sall mu moom géej mu moom mu yor réew mi ah tey ñun géej gi si lan yaakaar moom moo waroon a ñëw wax ak mool pour mën ñoo dimbali pour ñu mën a am liggéey pour ñu mën a liggéey si géej parce que boo day fi nekk fii nii si kaw la karee carré jëni jëni dootul wàcc si yaa ma dégg léegi nag fu mu toll nii jamono gi passé nii yéen gis ngeen ko jamono gi passé nii gis ngeen ko feebar mi dal mool fii caare géej fii kenn xamul ban feebar la kenn kenn te boota yi rek la boota yi kese loolu mosu fee am ban juddoo ba léegi mosu fee am boota yi kese ka fi indi ñun leen bëgg maanaam ñu jàppal ñu te yàlla tax ñun ñu liggéey mën a dimbal suñu waajur ñun loolu lañ bëgg ñun ay xalan tollaguñu fenn lii daal moo li fii nii mooli kase yi doon mbëkki de mooli kase ñoo lan dem di yéeg si si kalan di dem ci kalan di say mooli kase la nag parce que mool ñoo jaaxle mooy li ma wax léegi nee naa la géej gi gisatu di liggéey gisatu gisatu mas si dara dara dara dara amatu si mool ñoo dem ba jaaxle yéeg si gaal di dem te gaal bu ñëwaatoon tay tay bu ñu gisaatoon ay gaal dañuy yéegaat di dem parce que géej gi amatul liggéey. amatul liggéey amatul liggéey. ayca ah, léegi yéen yéen léegi yéen lan ngeen bëgg exact wax leen fii nii waxuñu nag maanaam pour bateau yi parce que maanaam bateau dañuy liggéey mais bu mënoon a wàññeeku daal moom moo ñuy dimbali bu ko defee jën yi mën a wàcc ñun mën a liggéey. Hmm. parce que bateau yi ñoom fan fan nappee ñun mën ñu faa dem di fa nappee waaw parce que maanaam boo fa demee ni nappe tey problème bi bari na jafe-jafe yoo xamante ne li lay dal si géej yow doo ko xam sax mhm. li lay dal si géej doo ko xam saa saa man nga daw sa mbësi ni fay xam nga doo gis gaal bu dimbali xam nga saa tamit moo li xiif amul lu lekk yooyu noonu yëpp dañuy dal si géej ay nawet day ñëw géej gi ngelaw gaal yi nar a dig xam nga am ñu si gaañook affaire yooyu noonu yooyu yëpp xew na si géej gi fii mhm. mais maanaam ñun dañoo bëgg ñu dimbali te yàlla tax dañoo bëgg ñun dimbali ñun ay xale lan mhm. ñun ñu ngi ñaan nguur gi bu ñu mënee dimbali si géej gi mhm. mu dimbali ñu te yàlla tax ñun loolu lan bëgg mhm. waaw géej lan yaakaar te ëllëg moom lan yaakaar te buñ juddoo balee géej lan xam waaw te ñaanu yàlla dem di sàcc dëgg ñaanu yàlla dem di sàcc am na solo ñu ngi lay jaajëfal looy tàggatoo waaw mooy tàggatoo moom di leen siyaar rek nga xam ne waaw télé bii moom wax dëgg yàlla moom télé bu am maanaa la waaw di leen bëggee di leen jaajëfal bu baax a baax mënoo wax sa mënoo ma ko quoi damay jéngu nii rek waaw maa leen bëggee baax a baax ñu ngi lay jaajëfal Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér di wóor